boroom xam-xam bu ñu nee am na xam-xam laaj koo la ma wuy boroom xam-xam yi ñoo seede sa xam-xam yow Maodo baayu Mustapha noo ngi ñaan ci yàlla mu dolli la wér sàmm la te dolli sa may yaa da baax te melooy dabbaax yi mooy jëfam sëriñ Maodo du mer ba teeya di sëriñ Maodo du wax ba xuloo du kontaan ba saaraan ci ay waxam kitaabu mooy mbégam ca saal ba moom la koy bégal muy alxuraan ci ay ñoñam sëriñ Maodo si yow woote woo ay maqaama ak i darajaay topp nga say mag te dar nga leen ci zaayiran wa baatinan ku xamoon mag ña ñëwoon xam la tey xam ne wuute woo mboolem sa mag ñépp gërëm Cheikh Ahmed Tidiane si gërëm na la cheikh abdul aziz al amin da koo béral nee na yow yaay rakkam te yaay cërëm njaaraama bàyyi mawdo da baax sëñ baabakar mansoor mii xalifa gëmewu la nu ñaan ci yàlla dolli say ngëneel bàyyi la fi te mooy nësër ci ñun taalibe bo boo fek fekk fa Maodo moom da baax li mooy sa amul murid amul tijaan amul xaadar mbaa sax laayeen koo fi tudd turu Maodo da baax mu naan la kooku mbaax mooy cëram si Maalik maa lay ziyaar di sàkku ngay nangu ziyaar loolooy sa cër ci ñun bilaay walaay yaa jëra ziyaar moom la ñuy ziyaara sunu waajur sunu sëñ si Alxaaj Malik Si Maodo yal na yàlla yàggal ko fi damay ko gudd fan damay ko wér jërë ngeen jëf Wilane bu Al